mbokk internet Actubuzz TV jërë ngeen jëf Babacar maa ngi ñëw seet si ki nga xamante ne mooy coach Lamine fas yéene waxtaan moom tuuti tey ci actualité lamb dañuy waxtaanee combat Modou Lo ak Siteu dañuy waxtaanee tamit tuuti tey ci li nga xamante ne gis li nga xamante mooy diggante Balla Gaye ak ki nga xamante mooy Lac de Guiers gis ci keroog jéego yi am solo yi nga xamante ne am na ci loolu dem dañu ko waxtaanee beneen bi mooy garab gi <laughs> Lamine bàyyi ma <laughs> beneen bi mooy garab gi garab gi nga xamante ne maa ngi koy jaay mooy garabu kattan gi muy garab gu am solo li nga xamante ci réew mi naan la du faj koo xamante ne dafa judduwaale yow mais képp ko koo xamante dafa néew kattan ku impuissance sexuelle ku émotionnel wala biir bi def ballottement da nga may wooy sama numéro 77 745 32 31 ma baamtuwaat ko 77 745 32 31 Lamine noo gisee garab gi. garab gar laa gis man dama ko utiliser wala bara nga naa ma abu noo gisee garab gi. am nga ci dara. non non non non xaw ma si dara. man naanu may garab. naanu may ren je suis naturel. mais am na ñu bari ñoo wax mais wane ma abu seen émission bi ma def rek lañ gis. nga wax ci li nga xamante ne mooy sa garabu kàttan bi nga jël sama émission yi ak yow it man naanu garab musuma gisuma garab gi xaw sa résultat wóoruma de bu ah, ah, may la ci non abu doo dugal non man lu ma koy doy man maa ngi entraîné abu man damaa wér yow it abu wax waxi garab naan ma noo gisee garab gi <laughs> ngay def ni yëpp xam naa ki ngay àndal ki la sant lii <laughs> yow ki la sant lii xam naa ko de mais yàlla baax na yàlla bëri na sutura yàlla nañu yàlla doole sutura maa ngi lay nuyu di la sant di la siyaar di màggal ñëpp di baalu ñëpp ak di ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg di ñaan Sénégal yàlla fi jàmm yàgg di ñaanal axlu làmb ji yëpp amin waay ñu ñëw ci jéego yi géejawaay làmb ji fi mu ne nii tegaan yeneen jéego mooy ubbi tëb làmb ah ren nga bëri ay xale yoo xamante ni tey jël nañu ay avance war a bëri ay combat yu métti métti métti si saison bii tey ah ma ñu am nañu seen kii nag mu ngi toog di xaar amagul avance boobu ba léegi Balla Gaye mu ngi toog di xaar ñu ngi xaar Balla Gaye daa am problème mu avance non am problème avance problème adversaire actuellement la ñuy xaar amul Balla Gaye kay ñaan yi bëri ñi moom am na ndëndam kay samp na ko fi mu koy samp day taxaw di xaar mais Balla Gaye bul wax waxi par Balla Gaye fi nii ku muy bëreel war na laa mën a fay xaalisam sax pour bëreeg yow dëgg la ku daan la ñuy lay teral na ko yàlla teral na ko waa xawoon nay rek mais mën na fay mbër sax bëreeg moom musul nay waaw ah, baax na amul problème waaw <laughs> ah, baax na ñu continuer ñëw ci waxtaanu làmb jamono ji coowal làmb mais ñoo gisee keroog image bi nga xamante ne tey am na te ay doomi Guédiawaye ñoo ko dox Lamine mu image bu rafet ñu jàpp la daguère ànd ak moom dem ci moo Balla Gaye ñu jëm gisante ji waxtaan image boobu man dama ciy am contentement bu wéral nag man ci kontaanee rek laa ciy kontaanee su ma meree mel ni dama am lu ma jàpp di wala am lu ma dal loolu lu rafet la man yàgg naa ko samay waxi tey samay waxi démb moo ñëwaat tey rek mm. mooy suñu àndee mu rafet mais suñ tàggoo nii ku nekk jaar ni kii mu ñaaw loolu lu baax la maa ngi leen di yàlla jàmm seytaane bara dugg seen diggante te xam ne ñoom ñoo bokk sport bi te xam ne ñoom ñaar dañuy daa am benn foo xam ne fa lañ leen liyee ñuy ñuy porter drapeau boobu muy Casamance ak géej Géejawaay muy ñaari drapeau kon war nañoo mën a ànd bokk ndey bokk baay uh-huh. waaw loolu rek laa ci gis naa ah, gisuma si leneen ah, a wax dëgg yàlla kontaan naa ci bu baax a baax wax yi ñaaw àdduna amul solo fii loo fi gis lu ne day jeex coow léegi riir bii yëpp day jeex kon lu mënti doon rek ñoom ba nga ci tollee na nga koy rafetal rek ba pour sóor ëllëg ëllëg lu jar a sóoraale la te ñoom ñaar ay champion lañ ay porteur de voix lañ maa ngi leen di ñaanal liñ bëgg seen diggante suñu borom defal leen ko musal leen seen làmmeñ ñoom ba pare ñoom ñoo war a xam li ñuy parler ba pare ba pare doog leen a musal si seytaane si nit ñi waaw yal na yàlla jàppale ñoom ñaan ñëpp ku si nekk li nga dënmal sunu borom defal la si ndam amiin mhm. loolu rafet na muy image boo xamante ne dañ ko doon tey ci géejawaay ci lu bëree bëree bëree bëree bëri comme tey géejawaay da ngeen am ñaari nit yokk sama poids jëluma poids ma la nag moo tax école de lutte dama bëgg bàyyi sax pour bëre booy yi mënuñu ma te man gis naan roi des arènes mënut ak géej booy yi mënuñu ko génne géejawaay faa ma futtee ko bëre boo futtee ko di nga xam di nga mere deful dara damay bëre ak ñoom ñii bëreel ñoom ñii laa njëkk a bëreel <laughs> waa laa dëkk damay dellu Pikine ah, géejawaay laa samp sama ndënd ak ah, yaa ngi samp sa ndënd waaw waaw waaw yow pexe yi nekk fi mu ne nii jamono jooju nag samay pexe ngi si de même say pexe affaire course bii nii say pexe mu ngi ci pour dem man duma la ci bàyyi non man pour dem bi du question dara man même suma ma bàyyee sax aw jotu dem fenn su ma bàyyee fii laay resté seetaanewu ma làmb dew ma fenn demaanu ma fenn su ma bàyyee laa la wax aw ma jotu kenn dew ma benn écrit paate dew ma écrit dem ànduma ak mbër topp ma mbër de fréquenté wu ma mbër su boobaa si parking bi laay kon kon ne mooy doon sama lépp làmb dimanche sax duma koy seetaan kon su boobaa mais maa ngi ci làmb maa ngi ci école de lutte Balla Gaye ndaw grâce à Lamine wax dëgg yàlla daa am ndaw yoo xam ne dañoo yaakaar si lamin si soutien am loolu la ko munoo wane ginnaaw mais bis bu yàlla defee jàmm rek nit ku nekk ñaanoo yàlla benn affaire rek nga nekk si nekk si da ngay ñaan yàlla bis jot nga nekk si leneen lu gën nga décorosé wu dem. Mhm. dëgg la loolu ak lamb ci li wax dëgg la lamb tamit dafa ànd ak coow mhm. coowal lamb lambu coow coow kese la mais Lamine euh, ma fàttali gars yi di leen wax ne ku bëgg euh, garam ndoxum siti ni ñëw may ko gratuit dama koy may te gratuit garam ndoxum siti ku ko am na ko ma ci may billahi ma la barke sëñ Tuubaa soo ma mayee ma jël ko yàlla sonn ci ndoxum sitem bi day faj ba nga wér barke mm. Seydina kuy dund am nga ko xëy na daa am bu feeñ ak bu feeñul mm-hmm. mais kuy dund Africa mais rek dafa am ndoxum siti ñu yàqoon wax di yàlla moo ko faj parce que Seydina moom gis sama baaraam yi moo ko faj mais yàlla baax mais tamit en plus tamit yaa ngi mais sunu parking bi tamit dëgg la automobile ñu ngi nekk roi non gaa yaa ngi ñëw sax mais dañ gën a ñëw rek ñu ngi nekk sur hôpital roi Bonoyo location vente lépp am na fi ah ku ci bëgg oto rek na la contacté yow boobaa nga jox ko numéro Lamine waaw ah, ndax sama numéro moom yomb na 871 51 95 871 51 95 ku ci bëgg oto rek ñëwal fii ay ca nañ waxtaanee lamb nag nañ waxtaanee lamb jërëjëf Lamine ñu dugg ci lamb waxtaanee lamb coow la bari na en tant que mooy Siteu cool yi bari na mais man dama si def benn analyse man man loolu man la engagé dañ ma laaj man leen góob ma ne Modou Lo mën a ko ëpp doole ñaari yoon te góob ma ne Modou Lo mën a ko daan. loolu am nga si droit làmb li nga wax noonu du la ko weddil ndax làmb chaque dimanche nit daan ku ko mën. dëgg la chaque làmb nit daan ko ko mën. Siteu liggéey na Modou loo liggéey na wax dëgg yàlla macha allah maa ngi leen di ñaanal. yàlla na leen sunu borom jàppale lafal leen cat ba kenn buñ ci am blessure bu ci kenn am benn gaañu gaañu ñu ñëw dimanche su kañ le 27 incha allah le 24 incha allah que le meilleur gagne mais su dee wàllum liggéey surtout ku ko gis xam ne liggéey na Modou Lo li ma doon wax rek doole ju fekkante moo ne si yaram bi li mu yor ñëpp ñoo ko moom hmm? Hmm? Modou li mu yor yëpp moom Siteu mii tamit benn affaire rek laa damay taxaw naan daa yebaate kon Siteu daawul liggéey Siteu mu ngi doog a liggéey est-ce que seetlu woon Siteu li mu mel nii mosu ko mel si làmb. mosu ko mel si làmb kon Siteu daf ñoo yeboon Siteu daawul liggéey Siteu mu ngi doog di liggéey ba mu doodee Siteu ba léegi. la wax dëgg yàlla bi ma ko gisee dama kontaan ndax man dama bëgg sportif boo xam ne da ngay simmeeku ñu gis ko mu yokk mu liggéey te man damaa bëgg loolu na athlète da nga ko war da nga war di toog di natt sa bopp xam ne nii ma laa meloon ren daaw nii laa meloon daaw te xoolal ni ma melaat ren loolu athlète su ko dul yekk xool si boppam rek du dem mais wax dëgg yàlla ñoom ñaar ñëpp ku si ne liggéey nga te ku si ne mën ngaa daan sa morom ku ci ne mën ngaa daan sa morom Modou Lo daan na Siteu nag du bett kenn mais Siteu daan na Modou loolu mooy surprise bi. ci làmb ji ci te Siteu war na koo mën a daan comme ni ko Modou Lo mën a daanee. làmb la. làmb la de. Modou Lo ku ne ko yaa mën Siteu yaa ngi ko bëgg a yàqulu làmbam rek na ko respecté xam ne titre roi des arènes la yor lépp lu ci war ak lépp lu mu daan laaj na ko def. dëgg la Siteu moom na ñëw xam ne kii daan ñëpp kii daan moroomam yëpp moroomam yëpp. Mhm. la ñëw di bëreel mooy dafa ñëw tegle Ama Baldé tegle Boy Niang te ñooñu ay adversaire Siteu lañ te dañoo échoué Siteu na ñëw taxaw wan ni tey ñëwuma pour titre roi des arènes damaa ñëw pour daan Modou Lo lool loolu la war a gën a indaale mhm. mais ku fiy toog naan ko Modou nii ak Modou Lo naag yaa mën nii ak nga mag sangam Siteu na ñëw xoolal entraîné déglu père Max mbargaan sunu borom lu mu ko may rek mu jël te xam ne ñun ñoo fi nekk di wax ni mais yàlla noppi na bu yàgg. économique da cee am dafa am ñenn nañu taxaw ci consultant wu lamb que ne 35 combats buñ doon bëri Siteu for dara man ma weddi loolu tëral ko si suuf. moo li nga weddi noonu mooy dëgg loolu mënul nekk moom loolu mënul daan trent 35 fois Siteu mbër la buñ ko xeeb. Ah. nit kenn du ko xeeb te nit kenn du ko tuutal te nit kenn du ko soo suufanteel yàlla sunu borom bëggul loolu. nañ xam ne ñoom ñaan yëpp ay jaam la juy ñaan yu nekk si benn jongante di ñaan mhm. mais ñiy analyser nañ wax nu mu gën a rafetee te xam ne Siteu daa am ay mbokk yëkkati ay millions dem préparé wu ju mm-hmm. États-Unis ñëwaat dem Gambie mm-hmm. ñëwaat di entraîne di ñaan di def yëpp ku ko ci munta ñaanal bul ko wax lu koy déstabiliser te yaakaar naa ne sax mënuñu koo déstabiliser Sénégal moo mel noonu nag tey ñii dañuy far fii ñee far fee Lamine a ngi nii ñii tey dañoo déggal Lamine ñii déggaluñu Lamine ñii ànd ak Lamine ñii ànduñu ak Lamine chaque jour nga gis ma commentaire am ñoo xam ne kontaan ci li may wax nañu véridique am ñoo xam ne ñu ngay saaga ñu ngay wax wax yoo xam ne loolu munta ñàkk loolu si àdduna la mais mhm. Siteu gëm naa ne entraîné na lu mën a daan Modou ni Modou Lo entraîné lu mën a daan Siteu waaw léegi nga wax am solo Lamine man ba ma dalee gis préparation combat Siteu ba léegi mais dayoo bi ma gis si Siteu actuellement nii doole ji mu liggéey ak li ma gis ci yaramam bi dama gis ne man leen Siteu ah ok kii am na fu bëgg ci làmb am na lu ko ay mbokkam sas te et puis séeréer si damay wax tout le temps dañoo am dañoo am problème daanaan ci làmb ji. Siteu daal li ma la mën a xamal mbër la. daa defe ay pexe def parcours ba mu siy doog a dugg si làmb ñëpp dañ ñëwoon du daa tuuti. dëgg la dem na ba sunu borom dem ba tudd ko fii muy taxaw di bëre titre roi des arènes. kon nañ ko mu ngi sant yàlla bu baax. mais li ma la mën a xamal làmb la. Siteu liggéey na liggéey na si côté entraînement li ma gis nii. Siteu doy na ma pour mën na daan ku dul Modou Lo si ko lii ma gis nii. li ma koy digal mooy. benn aspect rek boo xam ne wóoruma mooy musculation na yéeg na din def na lépp chargé wu na ba am doole mais na contact lu bari mhm. contact bi mhm. bu mu wàññi benn poids Siteu na jéem a yokk sax fi ak làmb ja mais bu mu wàññi Siteu lu mu yokkul war koo wàññi am nga yaakaar kon bu diisee mu mënu ko mënu ci moom dara diis bu ànd ak contact gis nga mbër soo diisee loo diis diis say bëree rek garaawul xam nga ban mbër moom neextu mbër mu diis sa contagul lu doy mais combat bi des na lu mu bon bon un mois fi mu ne nii. waaw kon surtout déggoo la un mois rek contact bu dëgg bu bu metti boole ko physique bi metti mën nga cee am lépp. cardio bi moom li ñu ci bëgg contact rek moo koy def. di nga am mobilité di nga am réaction di nga am vivacité di nga am lépp ku nañ contact rek ñoom ñaan ñëpp moo foofu lañ toll fi mu ne nii. contact bi moo si des. dëgg la. Mhm. nga wax ni léegi dafa am solo léegi léegi. mais dañu gis ñaari combat yoo xamante ne Modou Boy Niang ñëw diis mu daan koy Ama Baldé dafa ñëw diis ko ci. loolu du du penaliser Siteu ci combat bi. non Boy Niang bi muy bëreeg Siteu Modou Lo diisul de bi muy bëri diisul xam nga diis ak lu sa attan lu sa yàq attan ak Siteu tey jii Modou gis nga fii mu toll nii fii mooy Modou Lo ko xool xam ne jël na poids normal am. waaw leneen lu mu yokk ci yaramam rek day sonal boppam mais Siteu njool la te yaram bi des na ba tey mën na duyuwaat ba si kanam mais ni moo tax man la nii ma gis nii gàtt gàtt Siteu mi ko gis xam ne mu ngi ak 120 kilos yu wóor. dëgg la su ko ëppul loolu doy na 120 kilos yu wóor mun ngaa daan ku ne. dëgg la nañ contact gi rek. xam naa ne ñu ngi si mais nañ ko gën a def làmb ji si bëre lay jeexee. du jeexee si xeex du jeexee dara si bëre lay jeexee. Ah? man maa la ko wax fii. te su la neexee ngeen téye micro téel vidéo beeg yëpp làmb ji si bëre lay jeexee. du jeexee si xeex du jeexee dara. man dama ne est-ce que Modou Lo sañ na jëm jëli si te songu ji ko. pour pourquoi pas làmb la Modou eh, Modou mën na lépp mën na xaar mën na dem. te boo ko songee du du la pëtëxal. pëtëxal comme nan noo song ak er, say tey ji si te mën na jël ku ñu doo koo song. waaw loolu da koy sóor Modou mën na jël pourquoi pas Modou Lo yow nga yaakaar Siteu mënu koo songe Siteu mën na attaqué ji Modou Lo song ko def lu bett ñëpp gis nga su tey Siteu combat bi su doon man maay moom tey jii làmb la comme ñëpp mais titre roi des arènes lay bëre finaal la finaal da ñëw def li nga indi bul xaar dëgg la de la de moom moom na gëm li mu liggéey rek lu ko dooleem may ak xelam may ko ko ak bëreem may ko ko rek na ñëw def ko entraîneur yeeg yëpp dëgg la nañ ci liggéey nag. combat coaching la mais première affaire si Siteu lay njëkkee. si Siteu décision bi si Siteu lay ne mais combat bi combat calcul la combat la mais première décision bi ñuy jël Siteu moo ko war a defal boppam. Siteu normalement su dee mbër gi mu ngi ci moom heure bi war na xam la muy war a bëreeg Modou Lo. war a bëreeg Modou mhm. nga xam Modou da nga indi Balla Gaye mu daan ko deux fois ci biir lamb. te saa boo leen bëri ak Modou bi ngeen tegal Modou lan la est-ce que loolu nga capacité boobu si non gëw ma ko nag ndax Balla Gaye moom comme li nga wax rek c'est le meilleur quoi. Balla Gaye façon bëreem man Balla Gaye mbër ci làmb ji du bëre bëre bu ma jaaxal ndax Balla Gaye. ndax dama nekk ak moom xam ko xam saay-saay ji nekk ci moom xam bëre bu nekk ci moom. mais dama la wax benn affaire mbëriñ fii gis yëpp bul ko tëkkaleeg bala Gaye de tolof tolof nag mënoon na dal ku ne xëy na daa nekkoon ci tolof tolof am lu mu bàyyi woon. te loolu su ko su ko jëlaatee téye ko nekkaat ci yoon boobu rek kuy jafee daan la. mais yi fii dégg nii yëpp man mbër mënut a bëre bëre bu ma jaaxal ndax Balla parce que dama koo géewal contact ko contact ak moom man bëreeg Balla Gaye ba tàyyi Balla Gaye jàppante nañ guddi jàppante nañ bëccëg bëre xam naa Balla Gaye qualité bëre yi nekk ci moom mbër kaamil la mais surtout tamit tey jii nañ xool li nga xam moom mooy avantage ak li mu mën rek ñu def loo ko ko mënta mhm. duma moom loo mënoo koo daan waa loolu dëgg la loolu dëgg la ku munta duma Modou loo moom munoo koo daan loolu c'est vrai moom ku ko munta duma moom munoo koo daan. dëgg la mhm. ku munta duma ku ko munta dugal yóbbu xel mi munoo koo daan. Mm. indi baax na. Mhm. dëgg la bu xel mi ngay bës dañuy si Balla Gaye buy bëri moom ay ngàdd ak lu ne lay lay xeex ak moom. non Modou moom dama la su ko neexee benn bennal su ko neexee indi la bagaar boo xam ne doo doo xam looy looy bëree day jaxase xel. mais li ma lay wax ne lépp si liggéey la rek mbër daal soo liggéey ba soo entraîné ba am doole contact ba os li la jaxase yombul lépp si liggéey bi la rek. loolu am na solo lool Lamine yaa ci waxtaan bi ah parce que def na si analyse bu pertinent am na ay wax yoo xamante ne wax na ko ci muy wax yi am solo beneen bi changement bu CNG bu bees bi loo ci wax ban xalaat nga ci am. changement ban la. Aliou Ngom. ah Malick jël na affaire moo ne Malick ñu ngi doon déggante léegi mais waxuma loolu nag. ndax Malick wax dëgg yàlla bëggut a jiitu ministre bi quoi ndax daa am ñu ko daa dëkk dëkk daa am ñu ko yor te ndomba yi daa am ku ko yor Malick sañul génn déclaré te kenn gisul papier bu ministre bi génn wala jotagul leen na. mais jot na ko mais euh, parce que lépp loolu euh, euh, internet bi yëpp loolu lañ bind. su ko jotee maa ngi koy ñaanal bonne continuance bonne continuation yàlla na ko ndam li jik liñ bëgg ci làmb yëpp. sunu borom dina ko def mais Malick moom nit ku baax la Malick moom yor affaire yi tiitu ma ko moom. parce que xam naa Malick baax sama waay la fii ma toog même pas 30 minutes ñu ngi doon wax par téléphone. Mhm. c'est ma nekk fi naan ay fii laa far comme yi gars yi bëggoon def yooyu yëpp doon maa ngi doon génn di wax ay wax yoo xam ne mais grâce à Gris Bordeaux rek. non non non non dafay génnoon di taxaw naan ay entraîneur ay topp mbër la ñoo ngi pour lan muy wax loo danañ topp mbër yi. waaw mais dama cee xool Maodo ak Feuz rek moo tax ma bàyyi sax. monsieur mais mais yéen tey yéen lu mbër mel yéen ko def ci làmb. garaaw nañ bàyyi noonu rek mais man daal l'essentiel dootu man daal garaawul quoi nañ bàyyi foofu yàlla baax na dama cee rus ay raxam mais giri moom sa waay mooy loolu quoi jarul topp sax ndax tey soo toogee dangay ngay déglu ay conseils dañ la fiy wax mele yu kenn xamul quoi te jaru ko mais nañ ko bàyyi noonu rek mu te giri yaa ko ak sunu kanam. giri <laughs> yaa ko daan contre Balla Gaye. làmb ak sunu kanam ay booy yoo xam ne man bàyyeegul dafa bëgg a continuer dinaa yor indiwaat sax ay booy ñu daan waaw dama koy défier de duma ko may jàmm di ko doon entraîneur mooy làmb waaw entraîneur mooy làmb làmb kenn mënu see génne entraîneur te balaa koo xam baal ba sama combat yi ma am jub si combat njarweel yi ma jëm la ñuy xam ne entraîneur mooy làmb mais seen bi fi nekkoon yéen jafe-jafe nga gis ne làmb sooxee na fa lu ñu war a defar ak problème bi ñu am ci làmb non man gisuma ci benn jafe-jafe. mooy def def nañ def nañ li ñu war a def yëpp. <laughs> def nañ li ñu war a def yëpp suñu borom moo leen fi jéem man xam nga lu tax. Hmm. man sama xaalis dagguñu ko. Ah. i danga may déglu si làmb laa nekk sama xaalis dagguñu ko def ñu ma dara ñoom ñi doon dagg ak ñi doon kaas ñoom gis nañ jafe-jafe yi kaas nañ ko jële nañ fi bira mais ñoom it par contre li ñu leen doon daggee ak jafe-jafe yi doon am ñoom am na loo xam ne am nañ si par responsabilité ngaloo ngaloo nañ respecté nañ dem këyit yi leen CNG di jox nañ koy jàng xam ko ba ëllëgee bu leen kenn dagg ñuy kaasati ndax CNG lu mu tere rek lu mu la def rek daa am fu mu ko teg. mais yow say mbër ngeen dagg ay dagg yu métti. yoo xam nga duñ duñ joxe duñ joxe asaka moo tax. ay cat dara fay la ngeen dagg dagg yu métti. duñ joxe asaka moo tax. non du problème asaka de <laughs> CNG laa lay man dama leen koy yéene. bu samay mbër kese ñëpp ñoom ñëpp ñoom ñëpp dangay ngay am combat duñ libéré. lu joxe lu doy kay gaa tamit man ah mais entraîneur sëriñ yow sëriñ daa mën a daj ci li may daj man sëriñ bi fee lay toog di ñaan rek dañuy dóor rek ñaanuñu dara kenn amatu ci xam-xam fii ah moo dañuy wax rek sëriñ yow fii ñi fi mën a ñaan bareetul surtout ñaanuk làmb ñi fi mën a ñaan bareetul de mais ku ci mel ne sëñ Modou Touré yàlla su ma may na ko xam-xam ah koo de ah déet am ah, ah xam ngeen ko yéen. non man xaw ma sëñ Modou Touré fan la dëkk. laaj ko dama laaj dama laaj Aziz kan mooy sëñ Modou Touré. xaw ma wedduma ay sëñ Modou Touré ay dama ne xaw ma ko laa bu fi nekk di ma ay sëñ Modou Touré <laughs> xaw ma sëñ Modou Touré de. da nga ne sëriñ ji fi nekk ñaanatuñ man la ku ah cey sëñ Modou Touré. man bari laa xam. ah bari nga xam man sëriñ Modou Touré laa xam. déggoo li ma la. te lu ma mos wax ci laabu am na laabu ji man dee nañ ma. Eh. man bari laa xam combat bi dee ma ci. combat ban. Modou Lo si Siteu. Serigne moo la ko wax. kilifa bu mag. ñaanal ko yàlla na fekkee bis bi. amin nee ko yàlla na ko yàlla guddal fa mu fekkee bis bi man de wax dëgg yàlla mënumaa dee kenn bis bi ndax xaw ma ba xam bis bi dina ma. fekk mais li nga analysé nii rek mu ne nii yow tey boo indiwoon Siteu tey Modou Lo waxuma fi lenn loo xam lu koy indil problème. ndax tey jii Modou su ma xamee faayam sax du fii laa ko waxee ndax Modou Lo du sunu adversaire bëréew ñoo ak moom surtout su ma xamee ay faayam du fii laa ko waxee ndax bëréew ñoo ak moom mais xam ngeen faayu Modou Lo xam naa faayu Modou gis naa ay faayu Modou Lo gis naa ay faayu Siteu mais maa ngi leen di ñaanal ñoom ñaan ñëpp jàmm ak tawféex que le meilleur gagne Abou que le loo bëgg luñ ma TikTok wala luñ ma def dara ah abu ngir yàlla yërëm ma ki favori la ñoom ñaan ñëpp mën nañoo daanante ñoom ñaan ñëpp làmb la nee naa la làmb dootuma si jox kii favori ana bërki dem moo njaay te fi àdduna yëpp tee tafaatin <laughs> ne day daan Balla Gaye da koy duma daan ko nu ko Balla Gaye def Balla Gaye da koo téye la mu ko defoon 2012 2000 lan 12 def ko bu gën a raw bi làmb amatul favori kenn mënul kenn dem liggéey rek dem ñaan lu xam ne li si des sunu borom moo ci moo ko yor dëgg la mhm. mais par exemple pour ñoo accompagner CNG bi ñoom Malick Ngom nga war am poste biir CNG waaw loolu waaw loolu lépp mën naa nekk loolu moom mu ngi sunu kanam quoi loolu lépp mën naa ne Malick sama waale sama lépp la mais loolu lépp mën naa ne maa ngi koy ñaanal jàmm daal te di ko ñaanal yéen bi yàlla na oyof si xam ni làmm moom na xam ni tey jii ñi ko wër di wax nii ñëpp suba ñoo lay yuuxoowaat nay sóor loolu de ñoo faroon bira waaye dañoo far fenn ki ma doon wax noonu sànq toogu fi woon daaw jéeg di tagg bira ren mu ngi nii di xarab bira ñi lay tagg tey suba ñoo lay xëy di xas mais bu ñu la taggee tamit teg la te defoo tamit lu baax dañ lay xas de man daal dama lay wax benn affaire man moom sama àdduna leen laa ko jàppee ku ma tagg tey ak ku ma xas suba laa yemale ku may tagg tey maa ngi xaar ne suba di ma xas Malick daal maa ngi koy ñaanal jàmm ak tawféex di ko ñaanal mondu làmb yëpp képp ku doon guerre pour Malick gagné li nga bëgg am ko maa ngi lay ñaanal naan la félicitation si xeex bi képp ku doon xeex pour Bira toog pour Bira gagné te Bira gagné nañ ko maa ngi lay ñaanal di courage c'est la loi du sport Bira dinga nga war a def si làmb yëpp def nga ko ñu ngi lay ñaanal jàmm ak taw tawféex di la wan ne Malick sa raq la sa jarbaat la sa lépp la ñëwal nga accueillir ko xamal ko lu mu xamuloon woon ndax am na yoo xam ne ni xamu ko teewul mu boole koog li mu yor lu koy jariñ lay doon te xam ne làmb dara xajo fi Malick mën na jël biraa sax teg si wetam liggéey ak moom di ko laaj ay conseil ndax ñoo bokkoon CNG bi àdduna amul solo àdduna amul solo bi laay àdduna amul solo jërëjëf Lamine maa ngi am contentement bu baax maa la gën a kontaan maa la gën a kontaan bu baax a baax di la ñaanal jàmm ak tawféex encore une fois rek maa la koy ñaanal jàmm ak tawféex bu baax a baax di ko ñaanal ñëpp sax. mais combat 1 milliard bi ngeen xaar wala. ku koy tëgg. ah ñu ngi koy dégg. combat 1 milliard. ku de Balla Gaye Balla Gaye li muy xaar. Balla Gaye day xaar ku kuran lay bëri wala ku lay bëri. Balla daal xam nga ne Balla Gaye daal ànd mu ngi entraîné mu ngi préparé. di déglu agent Balla Gaye xam nga ni suba suba su ko Aziz Ndiaye ne woon jëlal avance su yaaw jaal sax mu jël ko Balla Gaye amatul lu muy gagné si làmb Balla nee leen li mu war a def si làmb yëpp def na ko xam nga fan la toll rafetal parmeresam ak wut xaalis. dëgg la. foofu la toll Balla Gaye daan yóbbu ko fenn daanu yóbbootu ko fenn dañ koy ñaanal rek jàmm ak taw tawféex carrière man li ma ko si ñaanal mooy na ko continuer en beauté man loolu laa koy ñaanal mu continuer ko en beauté comme bañ li dal Yékini ak Tyson di ko dal daal loolu laa bëggul bàyyi ak ay defet loolu moom yéenewu ma ko maa ngi koy ñaanal carrière am su koy bàyyi na ko bàyyi ay ndam yu baax mm-hmm. jërëjëf la jaajëf abo